ñi nga xam ne kart moo leen ci fal ci yeneen anam yu dul euh, anam yi nga xam ne moom la démocratie ñoŋal ci beneen anam bi aussi Juan Branco di avocat Paris euh, constitué pour euh, ñi nga xam ne ñooy layal Ousmane Sonko dañu gisoon ne ci réseaux sociaux yi dafa fësoon lool ci di woote ndaw yi ak ay manifestations pour ñu génn jàmmarloog état di Sénégal pour ñu génn nasaxal euh, paix ak sécurité publique bi pour ñu génn daaneel nguur gi nga xam ne anamu démocratie moo ko fi teg. état bi nga xam ne dafa jàpp ne bi manifestation yi amee dañu dal ci ay moomeelam état bi nga xam ne dafa jàpp ne économie Sénégal. ak euh, bi manifestation yi ñongé dafa am ay yu ont yuñ ko defal état bi nga xamné dafa japp qui ci ay investissement lourd yo def ci transport ci walu eau ci walu assainissement ci walu électricité ay qui ñaawteef dañu jog dal ci lolu état bobu laaj ko ndàmpaay ñu teg ko ñi nga xam ne ëllëg ñoom la yoon di daan. Que des mesures fortes soient prises pour que jumtukaay yi moom danañ ko daal di jël ngir jële fi ñi nga xamante ne ñoom ñi lee dañoo nekk ay organe de presse yoo xam ne nekkee wuñ fi lenn lu dul yàq métier bi lee nga xam ne moo di journalisme tey bu ñu waxee liberté de la presse ñëpp xam nañ ko am na ci constitution bi ak euh, organisation internationale yi waaye tamit euh, boobu leen liberté moom dañ ko daal di encadré boo waxee wàllum d'encadrement, xel yëpp dañuy daal di dem ci état état deful lenn lu dul rôle on parle d'encadrement tout de suite les gens jettent le regard vers l'état l'état joue son rôle. aujourd'hui la presse sénégalaise est en situation de quasi faillite. presse presse Sénégal deful lenn lu dul jëm faillite parce que nemmeeku nañ ci ay qui ci téeméer boo jël juróom-ñaar fukk deuxième élément bi mu ngi jëm ci li nga xamante ni ni mooy jàpp nañu ne atteinte la jëm ci liberté d'expression ak liberté de la presse journaliste yi dañ leen di daal di dóor dañ leen di jàpp tëj di leen xoxotal te journalistes yi nekkaluñ fi benn partie politique wala ab lobby journaliste yi citoyen rek lañ fi nekkal ak euh, nguur gi moo tax ma jàpp ne tey journaliste war nañ leen a jàppale bi nga xamante ni dinañ daal di mën a def seen liggéey ci nu mu waree. travailler de manière digne sans pour autant que l'on soit euh, violenté. alors assises yi ñu euh, tàmbali tey nag dafa nekk ay lël yoo xam ne dafay am solo loolu ndax li koy waral. moo di ne euh, presse bi yàgg na ay jafe-jafe yoo xam ne da koy dundu ti suux ak moom mu jëm ci euh, nekkinu journaliste yi mu jëm ci ni ñuy defee seen liggéey mu jëm ci euh, coono yi xam ne dañ koy jànkonteel ci terrain bi ci seen diggante ak ñi xam ne ñoom ñoo leen di war te jox xibaar yi ak itam seen digganteeg nguur gi seen digganteeg ñi xam ne sax ñoom ñoo leen di employé ci ay mbirum stage prestataire yeek ak ñi xam ne dañ leen di woowee ay correspondant te yenn saa yi duñu am leen loo xam ne dañ leen koy fay lu dul li xam ne moom la ñuy donc assises yi mën naa jàppale bu baax presse bi ba yooyee ponk ñu mën ko waxtaanee jéem ci andi ay saafara waaye itam dina baax loolu ngir ñu mën a waxtaanee yenn mbir yoo xam ne day taxaw ci ndodd journaliste bi mu jëm ci mbirum délit de presse yenn journaliste yi xam ne dañuy xaw a tiit ndax dañuy foog ne suñu waxee lenn wala leneen dañ leen di xoqatal yóbbu leen kaso yenn médias yi xam ne suñu defee lenn ñu tëj leen wala ñu couper seen fréquence ñenn ñi ñu leen di wax ne mën nañ leen euh, redresser fiscalement ba tax ñuy ragal ñu mën a am lu ñu fayee yooyu yëpp ay mbir la xam ne suñ ko waxtaanee na tax ba journaliste bi xam fan la moom juumee fan la war a mën a gàggantee boppam waaye itam nguur gi xam fan la war a mën a dawalee yërmande ak itam fan la war a mën a gën a jàppalee presse parce que presse itam ci réew su ci amul mooy démocratie amul ci te démocratie amul ci réew dañuy wax ne loolu nekkutul réew mën nañ ko woowee ab ab dictature wala leneen kon nag loolu dafay baax ñu gën ko waxtaanee ci eh, jamono joojee waxtaan boo xam ne day dëggu ci diggante ñun ak ñi xam ne ñooy nguur yi beneen mbir mi xam ne jàpp naa ne itam dinañu taxaw bu baax a baax mooy correct parce que correct suñ ko waxee mooy ñun euh, mën nañu wax suñu tribunal suñu gendarmerie suñu euh, police euh, ndax moom mooy tax ba bépp taskatu xibaar soo amee njuumte boo xam ne def nga ko rek ñoom suñ la gàggantee di nga xam ne non samay ñoñ ñoo ma gàgganti kon nag lii waratuma ko def lii war na jomb naa ko lii war naa ko moytu donc c'est bien ñu gën a bàyyi xel yooyu organe de régulation gën leen jox seen gëdd suñu demee ba euh, jox leen gëdd gi dëgg-dëgg presse itam gën leen jox euh, xel loolu dina tax ba bés dina loolu dina tax ba jamono dinañu mën a yegg ci foo xam ne du ñu xalaatati yóbbu gendarmerie ab journaliste wala ab technicien waaye dinañu wax ne am na ab euh, am na ab organe bu fi taxaw boo xam ne mën na moo ngi def liggéeyam. kuréel gii di wuyoo force vive ñoo bëgg amal ab mars bu rëy lu ko dalee samedi 26 jàpp dimanche 27 août ci fukk ak juróom-ñeenti département ci Sénégal bokk na ci Thiès Pikine Géejawaay Bignona Diourbel Sédhiou Linguère Koungheul Ziguinchor Rufisque Goudomp Dagana ak Foundiougne waaye waxtaanu ndaje boobee ngi jukkee ko ci plateforme bi ñu dippee chemin de la liberté lu ñu xamle rek mooy yóbbanti nañu fukk ak juróom-ñeenti lettre jébbal ko préfet gox bu ne ngir ñu yëgal leen te di leen sàkku ñu leen ñu def seen manifestation ci jàmm ndaxte le 19 août gi ñu génn bëggoon def ab manifestation ci juróom benn gox ci Sénégal waaye mu jutu antu lu waral plateforme chemin de la liberté maanaam wëy di moom sa bokk na si ñu liberté maanaam génnee ñi nga xamante ne yoon da leen teg loxo te ñu leen di dippee détenu politique ñoom ba tey waa plateforme chemin de la liberté ñoo ngi am mbégte si jéego yi nga xamante ne waa membre force vive yi def nañ ko si lu soxal veillée nocturne ñu doon def visite famille yi nga xamante ne dañoo jàpp seen ëpp mbokk ak conférence de presse yi nga xamante ne entité baa ngi ko doon def ndaxte seen activité yooyee taxoon na ba opinion nationale ak bu internationale bàyyi leen xel si seen ëpp ñuy mëne plateforme bi di sàkku si membre am yi ñu gën a organiser waat ba mën a libéré junneeg benn fukk ak ñaari détenu politique yi ak di Ousmane Sonko plateforme chemin de la liberté di wax rek ni que toroxal gu ñuy toroxal waa ñooñu militant wu dafa war Nous avons été informés vers 11h37 euh, minutes. bi 11h35 jotee la ñu daal di yëgal xibaar yi. xam le ñu ne ab benn bâtiment wu R plus 3 moom moo daal di daanu bi nga xam ne dañ ko doon defaraat foofu ca cité Cyprès te mu bokk ci département bu Rufisque. ci loolu lañ daal di amal déplacement ñun ak gouverneur bu région de Dakar d'ailleurs sax moom moo ngi fii ci suba ba léegi. lépp li nga xam ne mën nañ ko wax te mu tukkee ci jëye jile moom moo di fukki nit ak ñett ñoom ñooy victimes yi juróom-ñaar yi moom daal dinañ leen rawale ci hôpital Youssou Mbergane kenn ki ñu yóbbu ko fële ci hôpital principal de Dakar yeneen juróom yi des moom dañoo daal di ñàkk seen bakkan ci turu jiitu réew mi ak gouvernement bi yépp ñu leen di jaale seeni mbokk lii daal mooy li tukkee ci bile jéeye waaye lii lépp day tax ñu daal di ñëwaat ci li nga xam ne moo di protection wu liggéeykat yi si loolu la njiitu réew mi daal di soññee ngir ñu daal di liggéey ci woobule fànn liggéey boobu sax noppi na ba jébbal nañ ko ko d'ailleurs sax dinañ ko daal di waxtaanee ci conseil des ministres ngir mëna jëmmal jëmal boobu les décisions. en conseil des ministres pour que les décisions aussi urgentes et adéquates soient prises c'est la question. bâtiment yu bëri donne daanu doon lu ñu nemmeeku lool fii ci ndakaaru mu dem bay tiital ñenn ci askan wi ndax ay doomi aadama yu ci ñàkk seeni bakken bi ci mujj di foofale ca wakaam ak zac mbaaw ñu nemmeeku fa ay doomi aadama yu ci ñàkk seeni bakkan taax ba ñenn ci askan wi wax nañ li ñu jàpp ni moo ko waxal. mënoon yow nga def fondation wu R plus 1 nga xëy bëgg ci rek deuxième bëgg ci rek troisième alors que fondation bi attanu ko. dafa yàgg. loolu la parce que marché bi boo ko xoolee nee nañ def na presque vingt deux ans. dal boo xamante ne chaque nawet day taw ci kawam te et am na yeneen yu nekk ci kaw. xaj na yi tamit loolu bokk na ci. gannaaw li leen ci mën a fekk ñàkkum koppar doon na jafe-jafe bi si njëkk. bu ma nekk ci bâtiment gis mu am ay fissure surtout toit bi ci kaw ma ne ah man kat damay continuer dëkk fii ndax aw ma feneen fu ma dem mais lu risque la. te fii Yoff ñëpp xam nañ ne bâtiment yu bëri dañuy yëngatu ndax bi aéroport bi nekkee fii avion yi daan atterrir effet boobu muy def ci suuf si dafay def effet ci bâtiment bi. baax risque bi moom foo ko takk rek weesu na. mairie bi xam na bu baax manque de moyen daf cee am. lii bi mu daanoo ak léegi def na 6 mois ñoom jox nañ ñu ay sommation nañu ñu quitté les mais li tax génnuñu mooy amuñu fu ñu dem. ñu bëri ñu dëkk ci yooyu la kër ñàkk ak lu ko gën moo leen fa bàyyi rawatina fii ci ndakaaru ba tax na ñoom ñooñu le di woote ndimbal ci borom kër yi ak ci gouvernement bi. maanaam bi nañu ko defaral ba nga xam ne ni dina nekk ci sécurité yu normal mu fexe ba nga xam ne ni ay lakk du ci am ak yooyu du ci am. la responsabilité est partagée. état bi am na ci responsabilité ndax ñu mel ni DSCOS yow mii tabax aussi am nga ci responsabilité ndax war nga jël technicien boo xam ne mooy superviser bâtiment bi. mu doon lu ñëpp nemmeeku wàllum bâtiment yuy daanu fii ci ndakaaru tokk lool bu ñu sëkkandikoo ci lu xewoon Wakaam Zac mbaw ak juróom fukk kër yu ñu foofu foofule ca Medina. askan wi ànd ci ak tiit ak njaxle ba tax ñu am yaakaar ni nguur gi ak borom kër yi dinañ ci jël ay matuwaay yu war Alors, euh, l'Itarnu c'est parce que qui, euh, au niveau national, am nañ benn kuréel boo xam ne mooy dajale acteurs yëpp yi yëngu ci wàllu suuf mu nekk acteurs yi nekk ci ci institutions yi nekk ci nguur gi mu nekk tamit institutions yi nekk ci wàllu gëstu ñu mel ni IPAR waaye tamit institutions yi nga xam ne dañuy dañoo béykat yi seen bopp ñi nga xam tamit ñooy yëngu ci wàllu suuf waaye tamit secteur privé bi nga xam ne parfois dafay soxla suuf pour investir ñoom ñëpp dañoo mànkoo bokk benn kuréel boo xam ne ci la ñuy waxtaanee ci la ñuy diisoo ci wàllu yorinu suuf pour mu nekk njëriñ ñëpp xam ne mooy nan la ñuy fexe euh, problème yi nekk ci euh, foncier bi ne dox frontière euh, ñi mu nek Goudomp ak bunkling ñi nga xamné sen souf ak souf Guinée fa lekkolo parfois fay andi ay ay problèmes yu bari waye tamit né nañ bari nañ ay producteurs ay exploitants yo xamné jamono ji ni ñu ngi joggé côté nord ba di ñëw plus côté sud et particulièrement dans la région de Sédhiou té ñom dañuy soxla souf bu bari te euh, ñoom day fekk souvent suuf boobu noonu am na ñu ko yor donc dafay jaadu ñu am ay espace yoo xam ne dinañ xool ñuy waxtaane ba bu nekk gan tamit nu xam nu lay xajalee sànq tamit ki nekk fii mu gaañu alors bokk na ci tamit ci wàllu vol de bétail nee nañ tamit bëri na loo xam ne euh, seeni seeni jur dañ leen di sàcc te ñoom amuñu ci doole euh, am na loo xam ne tamit ci diggante ñii di yar ak ñi nga xam ne ñoom ñooy béy donc vraiment bëri na tamit yoo xam ne wax nañu ci wàllu Euh, yenn faro yi ñu nekk di gas ñu ne en fait c'est une exploitation de de l'argile bokk vraiment bëri na ay mbir yoo xam ne di jot pour que acteurs yi am foo xam ne ci la ñuy waxtaanee ñu tënk benn mbir leneen li ci yokk mooy dañoo ne tamit euh, il faudrait que ñoom ñii ñu définir ni lii mooy suñu priorité lii mooy suñu problème ñun. projet bu ñuy ñëw jàppale mu jàppale ñu ci loo nga xam ne ñun cadre bi ñoo jàpp ne ci lii nga ñu war a gunge comme ça bu mu doon projet yi ñooy ñëw rek jàpp ne ñun. li lañuy gis ni au niveau de Sédhiou dañ ko war a accompagner ñoom ñu ñoo accompagner ngeen bëgg ngeen bañ ñoom finalise nañ bind nañ la ba pare. vraiment que la demande soit exprimée par cadre bi ñooy wax ni ñun priorité zone Sédhiou soo leen ñuy jàppale lii ak lii ak lii ak lii mooy suñu problème. ñi leen war a gunge tamit muy service technique yi tamit ñu associer leen ñu xool ñu leen jàppale ba ñu am feuille de route nga xam ne loolu noonu mun na jaay territoire bi ci wàllu compétitivité. embouteillage yu bëri ñu nemmeeku ak bus tata yi nga xam ne dañ leen di surchargé si jamonoy tàngoor bi doon na lu metti lool ci askan wi rawatina nag ñi nga xam ni jël lii du bus tata yi wala njaga njaay wala car di dund lu méttee métti ba tax ñu ñuy xamal li nga xam ni moom la ñuy jànkoonteel ci biir oto yi la day métti trop sax tàngoor bi ak le fait que nit ñi xat ba embouteillage amee surtout vraiment tàngoor moom du neex quoi day quoi des fois nga sol weex nii ni ñi xamoon jóge travail ñëw ak seen ñàq bi riisu la ci xamoon mooy loolu quoi loolu lépp ci ci kii bi la quoi xam des fois aussi nga yàkkamti dugg ci tataay dangay ngay obligé wàccaat jëlaat beneen oto et puis des des fois receveurs yi dañu lay manqué de respect xam nga des fois da gis ko xam ni du am njëgu taxi quoi ñuy tataay rek la am dugg ci bus tàngoor bi day yor bébé des fois da ngay sax nga may ko place mu toog mais ba tey tàngoor bi day da ngay xam da ngay gis ni day sonal bébé quoi. tàngoor wi nag doon loo xam ni ñu bëri mënuñu koo supporter ba tax yenn saa saay ñuy jàppante ak ñi nga xam ni ñoo di dawalkat yi. façon tooñ bu ne tey ci subaa ci mujj xale koo xam ne mën naa la bàyyi nga taxaw naa ma bu ubbil bunt bi damay wàcce oto bu taxawut oto bu taxawut lan laay ubbee bunt bu daanoo kan mooy am problème du man ma ne ko du ma ubbil bunt bi. cooto bi taxawul tàngoor bi yàlla yàlla ko wàccee nañ bu fekkee dafa tàng réclamé ko yàlla ba ko réclamé chauffeur yàlla indi tàngoor wi feesaayu bis yi nga xam ni moom la ñuy nemmeeku file ci ndakaaru doon na loo xam ni rek waroon nañ ci mën a wax bu baax a baax ci ndaje conseil des ministre bi nga xam ne amaloon nañ ko ci noonu nag ñu bëgg ñu daal di ci indi ay saafara non ñoom je pense que moom ñoom seen seen deux cent yi trois cent yi moo leen intéresse quoi mais du client yi quoi ñoom nañ oto dafa oto bi day yëpp sax ba kii bi porte bi du mën a tëju quoi da gis nit ñi lang c'est pas normal quoi ay ay être non manque de voiture je ne pense pas loolu kii la quoi parce que oto yi bëri nañ ci biir trop sax mais je pense il est bien temps ñu renouveler quoi bu dee période tàngoor ñu xool nu ñuy def ba limiter place yi wala jéem a defaraat transport bi quoi mën ci gis sa bopp clients yeeg chauffeurs yi ministre des transports jëm te taxawaat bu baax a baax ci jamonoy tàngoor bi jël bus yi wala car rapide doon lu metti lool ci askan wi rawatina heure bi nga xam ni moom la ñu war a xëy wala heure bi ñuy wàcc ba tax na nag ñuy woo nguur gi mu daal di jël ay matuwaayam wala rek ñu daal di gën a xoolaat ni nga xam ni mooy système de transport bi Evgeny Prigojine donne ku ñu ràññee ci société paramilitaire du Wagner djégé le gouvernement bu Russie ñi japp ni mom internet recherche agency ñu bari fësal ni kat groupe Wagner groupe Wagner boobule sax ñu fondé ci atum 2014 chef de file groupe paramilitaire privé boobule sax ak adjoint ak lu tollu juróom ñetti nit ñoo daal di def benn crash d'avion foofee ca Moscou niki démb alarba ñaari fukki fan ak ñett ci weer août bi ñu nekk ci anam yu mu génn àdduna daal di teye xel lool ndaxte ci weeru juin bi ñu génne amaloon na benn rébellion bi mu jëmaloon contre gouvernement bu Vladimir Poutine ak génnuk àdduna kii di Prigojine daanaka groupe Wagner avenir fii ci Afrique mun naa ndax saay ndax ñu ngi leen di nemmeeku fale centre Centrafrique Mali ak Libye foofee sa Mali ginnaaw bi nga xamantene ay combattant dégg nañu ko sen patron génn na aduna. dañ ko defal ben une minute de silence bu ñu sukkandikoo ci département d'état américain lëkkaloo bi nga xamantene Russie yi def nañu ko ak état bu Mali mun naa weendi ndaxte ñu ngi versé ci lu tollu 10 millions d'euros ci compte Wagner ñoom daal dañuy jàpp ni su fekk ne ñu ngi respecté boobule lëkkaloo mënul am benn jafe-jafe. ak disparition patron Wagner Kremlin na jël yi a am interlocuteur bu bees gouvernement bu Mali. ci fàttali dernière sortie mu ko def continent Afrique. ñu door xibaaru biti réew yi ak réewum Iran Argentine Égypte Arabie Saoudite ak Émirats Arabes Unis mi nga xamante ne si ni dinañ yokk si dooree ko ci benn fan ci weerum janvier atum 2024 kuréel bu réew yi ñu tuddee les BRICS maanaam réew yi nga xamante ni ñoo nekk ci yokkute bu ñu sukkandikoo ci njiitu réewu sud africain bi di Cyril Ramaphosa ci fukk ak juróomeelu sommet biñ doon amal fële ca Johannesburg ci noonee nag ñoom ñu les BRICS dina andi coppite ci seen tur ginnaaw nga xamante ni si ni dëkk nañ ci yokk ñoom BRICS, sax bokkuñu ay kom-kom naka noonu tamit ay valeur waaye lu mu menti ñu ci fàttali rek ñi nga xamante ni si ni ñooy BRICS bu jël population mondiale ak seen kaax ci PIB ci fàttali rek nous yokkute yooyu nag seenu askan mi ngi toll ci 3,24 milliards

ca réewum Venezuela fii ak juróom-benn fukki fan dinañu xamle ñan si fukk ak ñetti candidat ci ñu faree ci kujje gi ñooy teew ci élection présidentielle yi ñu dëgmal ci ñax fukki fan ak ñaar ci weeru octobre. ci ñi faree ci kujje gi nag nekk ca bopp ba di Maria Corina Machado nekk ab conservatrice bu ñu gën a ràññee ci antisavistes yi ka ca toftal ca kële di Enrique Capriles. ci loolee nag lu toll ni ñetti junni bërëbu vote lañ daal di teg foofee ca dëkk ba waaye tamit daan nañ ci yokkaat lu toll ni juróom-ñetti fukki bureau ci yeneen i gox. mu mel ni nag fukki at moo ngi nii ñi nga xamante ni si ñoo faree ca kujje gi ñu benn yoon seen tànk foofee ca réewum Venezuela.

ci ñoom ñooñee ñoo lànk bañ a lekk li ñuy joytu nag bokk na ci ñu gën a jëmal kanam ci anam yi nga xamante ni moom lañ leen tëyee foofee ca prison bi ñu ëpp ci askan bi sax doon nañ leen soutenir ci boobule xiifal nga xam ni ña ngi koy amal ca prison boobee waaye bu ñu sukkandikoo rek ci directeur bu institut boobee di Bahreïn daal na xamle ni bile mouvement bokk na ci bi gën a ràññee foofee ca prison bu Bahreïn ñu daal di jeexale xibaaru bitim réew yi ca réewum Japon bi nga xamante ni si ni daal na tàmbali li nga xamante ni si mooy évacuation bu eau usée maanaam ndox yu salte yi nga xamante ni si ni nemmeeku nañ ko fële ca centrale nucléaire bu Fukushima mu nekk ay ndox yoo xamante ni si nii nag dafa am lu ñuy tubbee ay substance radioactive lu ci mel ni tritium ak carbone 14 bu ñu sukkandikoo ci seen xam-xam màcc ci wàllu woowee nag lu ñuy duppee première déverse bi ca Pacifique ba du indi benn njeexi ñaaxa ci alam gi naka noonu yi tamit ci wér-gi-yaram waaye rek ñu xam leen ni nag premier rejet bi dinañ ko amal fii ak fukk ak juróom-ñaar ci ay bis ci lu toll ni 7800 mètre ki bu ci ndox fële ca centrale nucléaire boobee ndox yu salte yooyu nag ñu ngi nekkoon ci site boobee di centrale nucléaire ñu duppee ko Fukushima Daiichi mu jóge ci ndoxu taw yi ak nappe souterrain yi waaye rek ak ay infection nécessaire loolee sax moo waral ba ñoom ñooñee daal di joxe date ngir ñu jëlee fa ndox yu bon yoyé nga xamante ni ci tsunami ba amone ca mars 2011 ba légui ndox yoyé ñi ngi fa.